gars sama gars yi waaw DG Porto dafa wàññi 700 emplois quoi les gars yi ñoom di ko ñaawlu quoi naan xam lan cogoor def social bàyyi leen fa ah ku yokkul yaa wàññi ay père Bakary Mbaye di wax mais est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions Hein? est-ce que 700 emplois yooyu noonu Saint-Fil est-ce que ñoom ñu ngi liggéey si y a combien d'emplois yu gars yi def si mairie yi ak si port yeeg yooyu noonu maanaam nga toog sa kër di fayeeku est-ce que loolu mérite nañ ñu bàyyi la fa est-ce que loolu dina doxal dëkk deuxièmement contrat yooyu noonu 700 yooyu noonu est-ce que maanaam DG ba fa mujj avant muy dem la jël force leen dugal leen CDI ah ruube comme ñoom ni def seen boîte waa APR yëpp maanaam avant ñu dem ay racinta yooyu ku amoon 200000 ñu jox la 800000 la CDI est-ce que loolu boîte bi est-ce que ah dañu leen di public rek ne leen maanaam 700 emplois wàññi wàññi nañ 700 emplois rek nga naan si est-ce que seen contrat yi ànd nag certes certes boîte bi tant d'autres tant d'autres donc bu leen ñëw rek di diaboliser naan ay non social ak lii ku yokku yaa wàññi non bàyyi seen yooyu ci Saint-Ville fi amulay état d'âme quoi dëkk bi dañ koy teg ci yoon tu vois comme ce contrat bu baax di job si yoon gars yi bàyyi la fa moom bu xëyee tey ji maanaam waale bu ñaan bu leen ko nek Sénégal lay gën ko ëpp xool bu xëyee tey ba wañi employé parce que tax na mu am ay affaire yo xam ji jaarul yoon loolu tax mu ko mais gañul ben plaisir si wañi ay 700 personnes mais na nga toog sa kër sa weer ñu viré la sa salaire affaire non loolu amul amul amul jarign quoi ah loolu loolu doxalul dëkk tu vois dëkk dañ dox jub jubal jubanti la wax tu vois li jëlun ci ben plaisir fi kuñ fi tej neexu ñu parce que yaa dafa ñu la tejé kuñ fi kuñ fi dàq bëgguñu la dàq buñ seen dañuy créer emploi mo tax ñu sénégalais yi fal ñu mais nag duñ ci baye désordre tu vois bëgg lu leen neex tax ñuy xol ay zéro ay zéro ay ay état d'âme ba yaq dëkk bi duñ ko def